salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ku ñu fi ñëw sees nag daanaan la daanaan la ñëpp ko xam Sénégal kenn dootu ko présenté ñëw waxtaan ak moom ci ci koor gi dàq koor këram rek ñëw fii seet si ko Tëngéej ma bàyyi ko mu waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu képp koo xam ni euh, yaa ngi xool internet bi euh, rawatina Sénégal. namoon nañ la gis la gis waaw temps yi nag euh, ak koor gi dama mhm. xaw a. xam rek kal mu nekk fii sama kër. xam man moom bu ma xëyee maa ngi ci xar yi maa ngi ci maçon yi xam nga affaire yooyu quoi et puis comme euh, jamono yi passé dëkk bi dafa xawoon yëngatu. sëñ bi génn muy sëriñ taxa di suñu sëriñ ñun ñi nga xam ne ay taalibe dañ donc woote kalm donc dafay yell ci ñi nga xam ne ay taalibe dañ di ko wuyu ñu jëfe ndigalu sëriñ bi. Mhm. loolu moo tax temps yëpp moom. politiquement kenn déggul ma. kenn déggul moom beneen dinañ ci ñëw waxtaan parce actualité yi temps yi moom jax na bu baax même fekkee sëñ bi wax na mu ngi dégg ay déclaration yu bari. ma mhm. gauche à droite mais tey indiwuñu fi dañoo ñëw mhm. waxtaan ak yow ci koor. Mhm. Euh, Mame Gor Diazaka nan ngay dundee sa koor yow. waaw koor moom li ma koy dundee mooy depuis ñu nekk xale rek ñun dañ ci yar. mooy man sama papa dafa nekk koo xam ni xaafisu alxuraan la woon jàmbaar la woon. yar ñu ci ñu et puis bu weeru koor yi ñu entamé ko et puis comme weeru koor nag yenn activités yu bëri dafay wàññeeku man yàlla dafa dogal sama passion mooy mooy mooy jur mooy yar donc nag euh, ci laay gën a amee temps nekk ci jur yi ci sama xar yi affaire yooyu en même temps tamit dama am passion tabax mhm. dama dul sama xarit yi soo gisee même su ma yendoo si cité bi si maçon yi laay nekk. Mhm. donc su ma nekkul si sama xarit rek maa ngi si si si yi toog di waxtaan ak ma mhm. parce man pour man tey exemple bi ñu war a génne Sénégal. ñu bëri dañ koy tey ji star yi Sénégal moom mooy musiciens yi artist yi ak peut-être les les les kii ni koy waxee. Euh, communicateur traditionnel ak yooyu mhm. mais dans un pays dafa am ñoo xam ni man dama jàpp ne dañ leen war a propulser di leen wane bu baax mooy les ouvriers les mécaniciens xam nga les les maçons tout parce que mhm. tey jii koo mën a doon ci àddina tey yow même boo ma interviewé ba pare soo fi jógee ci kër ngay dugg kër googu am na climatiseur di sedd am yëpp tout mais ñi ko tabax ñooñu ay nit lañ yoo xam ne nit ñi dañu war a am reconnaissance ci ñoom surtout maçon yi moo tax su ma toogee ba wér rek si ñoom laay dem toog di waxtaan ak ñoom affaire demee noonu karab karab mhm. donc exemple ci ñu leen di wane bu baax baax surtout jamono bi ñuy toll nii ñuy wax ci affaire emploi de jeunes ak yooyu. Mm-hmm. te donc affaire bâtiment yooyu da yooyu kër gi nag macha allah allah ah kër gi 100 millions nga wax tabaxee wala ah en ah. man xam nga nag man dama nekk doomu commerçant. Mm. depuis ma nekk xale ba léegi tamit maa ngi liggéey. te sama xaalis foyewuma ko man du ma naan sàngara du ma tux yàmba lu ma yor sama njaboot laa ko réserver donc su ma amee sama 1000 francs indi su ma amee sama 100000 indi bu ma amee 500000 indi lu ma am indi rek ba am sama makkaan boo xam ne ku fi ñëw xam ni ñëw nga ci makkaanu nit koo xam ni nit ku baax la. mais def si xaalis nag kër gi doo ñu wax prix kër moom 1000 francs du ko tabax ak euh, parce que kër gi ma gis nii. <laughs> Euh, ñaanal ma rek yàlla moo am 100 millions yi ma mën a tabax. <laughs> alors ñu <laughs> wax ñu continué en daal boo xam ni. ñu continué ci ko euh, journée bi nan ngay def. waaw journée bi lan ngay def sa activité. waaw bi moom à part euh, li ma wax nii moom mooy. Euh, nekk ci li ma la wax noonu nekk sama affaire yooyu toog waxtaan ak sama njaboot. parce que boo xoolee bu dul temps koor doo am temps chaque jour yaa ngi fiy gën a fajar ñëw fi xaaju guddi. Mm-hmm. donc weeru koor euh, activité yi day wàññeeku di nga ci mën a profité nekk ak sa njaboot xam nga kenn ku nekk nga xam lan moo ko metti la moo ko neex. xam nga gën a am ñu profité tamit ci loolu xam nga au moins gis seeni parents c'est important. Mm-hmm. donc euh, ba pare tamit di def social. mooy képp koo mën a dimbali te yàlla tax tamit nga def ko parce que àddina xam nga amul solo. li nga li nga fi li nga dimbalee nit ñi ak li nga defal sa bopp rek la fi am. Mm-hmm. même xaalis boo ci amoon ay milliards et milliards def ko ci bi amul sens. Mm-hmm. li nga jox nit ñi ñaanal que damay dégg ñu boo ko joxee nii chaque jour ñu di togg saa ci lekkee ba keroog muy rees lu mu def ci jaam ci yàlla yow di bénéfice. Mm-hmm. donc bi di ñaan nit ñi ci ñuy def. jàppale euh, ñuy def social. surtout si weeru koor bi jàppale ñu parce que ci pandémie lañ génnee. Mhm. dëkk bi métti na donc képp a def loolu nga def ko loolu da mhm. um, mooy lay commencé ba 19 heures nga xëdd. non man moom doo xëdd parce que man xam nga woor soo xoolee année yëpp presque dama koy woor parce que li tax ma ne dama koy woor mooy. su ma masaan xëy fii génn fi le matin naan benn café. Mhm. mun naa ñëw ba 22 heures du ma lekk am. Ah. la. lekk lu ma soxla. donc man koor gi boo xam ne day entraîné tous les jours. kon yow daal doo xëdd doo jug xëdd doo. dara hmm. nag nan nga faral di ndogaloo. ndogu bourgeois wala bu yam ndogu. Baye Fall mooy la ndogu Baye Fall mooy lekk benn tàndarma naan café mhm. après pare xam nga dóor benn croissant après pare xam nga ay loolu ndogu tubaab àddina buy dox da ngay dox ànd ak moom c'est que il faut que nit ñi di bañ di radicaliser mhm. jël seen bopp bëgg ko yooyu croissant ah pauvre yi sax mën nañ ko lekk parce que croissant darul dara deux cent cinquante francs lay jël xaw ma tudd trois cent seeru mhm. donc nit ñi mën nañu ko lekk après lekk sa añ ceeb après lekk sama añ xam nga naafile ak sama famille xam nga. Mm-hmm. yaa naa naafile gi. kan fii non non am naa nag imaam. am nga imaam <laughs> am nañu imaam. <laughs> bu lay jiite ah, est-ce que koor dina la arrivé ngay déglu nga gën a yeesal sa diine genre nga déglu alxuraan wala booy génn nga lan ngay def ba sa diine. non man comme d'habitude rek li ma daan def laay def. Mm-hmm. parce que man doomi jullit laa. Mm-hmm. ci ci ci ci diine laa juddu ci laa màgg taalibe Serigne Touba laa. est-ce que comprendre dafay déglu xasaayit. et puis waaw damay mm-hmm. déglu ay xasida lu bëri di mm-hmm. déglu alxuraan en même temps tamit euh, am na ay ustaas yoo xam ne neex nañu ma seen waxtaan xam parce que c'est moderne ban ustaas moo la gën a neex su ma la doon wax Modou Fall seen ku mel ni Mamour Fall il est du Rufisque mm-hmm. tamit ku ma neex la parce que man xam nga les dama leen bëgg ama Rufisquois yi dañu jàng donc nag euh, loolu moo tax Euh, lépp loo xam ne dama koy def rek dinaa xool benn Rufisquois boo xam ne méngoo na ak loolu ma xool ndax mën naa am repère ci moom. Mm-hmm. te Oustaz Mamour moom mu defe mu ngi nekk 7 mm-hmm. mais ku ku ku ku ku ku xam-xam. du leen déglu du leen déglu. waaw dama koy déglu bu baax. ban euh, waaraate bu ngay gën a déglu loo xam ne dina la neex suñ koy wax. ci man man parti yëpp ma neex xam nga alxuraan moom. ah parce que oustaz Modou Fall moom ay affaire noonu lay wax ay yooyu est-ce que du yooyu. la si intéressé moo non loolu la nit ñi di dund xam nga affaire noonu dina ko dina wax affaire sëy dina mhm. moom parce que moom il moom dafa moderne. xam nga boobu moo am moo tax mu ñëw rek percé. Mhm. yàggul fël mais dafa ñëw rek Sénégalais bëgg surtout jigéen ñi te jigéen ñi képp ku ñu bëgg xamal ni da ngay dem parce que jigéen yàlla moo ko teral. Mhm. jigéen yàlla moo ko màggal. tey jii daraja joo mën a am te amoo soxna da mel ni nit ku nit nit ku solu yére kapran ku ne dung mhm. xam nga jigéen ñi ñooy suñuy yaay ñooy suñuy soxna tamit ñooy suñuy doom parce que tey jii man man am naa ay doom ay doom yu góor am naa ko mhm. mais boo xoolee sama doomu jigéen ñoo gën a nekk sama xarit donc jigéen ñi bu la tegee loxo rek yàlla day dogal di li ngay yóotu yàlla mën na la dimbali nga jot ko te moom boo xoolee nit ñi bëgg nañ ko mhm. alors ma laaj la nag julli bi ñëw ci julli bi. Euh, ban saar ngay gën a tari booy julli ban saar moo la gën a neex. <laughs> non man saar yëpp a ma neex. <laughs> waaw ban ban ngay gën a yàpp ban nga gën a yàpp. saaru alxuraan bu neexul amul. waaw d'accord mais ban ngay gën a tari xam nga xam nga xam nga lixlaas. Mm. saar bu ma neex la. parce que yàlla daf ci dafa nekk saar boo xam ni même ñi faatu. Mm-hmm. dañ leen koy ñaanal dañ koy ñaanal dañ naan defal ko onze lixlaas. Mm-hmm. li nga xam ne chaque fois nag yow bis boo wanee ginnaaw exi ñu naan existé to moom la la nit ñi di accompagner loolu dafay am solo. Mm-hmm. nga bëgg ko. moo tax man lii laa saaru neex la. Mhm. ñu bëri ñu naan artistes yi ñu bëri ci koor gi la ñuy profité euh, di dem studio lan nga gisee loolu. waaw non xam nga tey jii boo xoolee artistes yi ñu ci bëri bu dul temps koor dañuy bëri ay concert bari spectacle bari ay voyage mais bu temps koor ñëwee nii affaire yi dafay wàññeeku ak par période pandémie bi ñu nekk nii nga xam ne àddina bi frontière yu bëri dafa tëju léegi. Mhm. donc ci li ëpp temps pour mun a dem. mais moom mais xam naa bu koor bi moo exception la <laughs> parce que boo xoolee ci pandémie lañ jógee gars yi amoon nañ temps mhm. ñu dem studio di enregistré mhm. voilà da ngay gis koo xam ni day enregistré man mii day wax yow am na naa ay woy yu bëri yoo xam ni génnewu ma ko mhm. parce que paratu pandémie lañ nekkoon affaire yi métti doo ko génne boo ko génnee tamit def la da nga koy génn pour perte doo ci gagné parce que dañ naan euh, dañ naan artistes yi weeru par exemple dañuy jaamu yàlla ñoom amuñu temps pour sax ju lekk woor. non non gars yi dañuy wax xam nga fii moom lu nekk waykat yi moom artistes yi moom lu nekk lañu leen di jiiñ. Mm-hmm. dañ leen di jiiñ sàcc di leen jiiñ fenn di leen jiiñ doxaan di leen lu ne lu kii parce que métier bi ñu jël la di ko liggéey muy musique xam nga dafa bëri. Euh, dafa xam fu jigéen ak yi di dajee sàngara di fa am tuut tuut gars yi di leen di mais nag ci biir artistes yi am na ci ñoo xam ne dëgg dëgg ne yàlla ay nit yu sell lañ te gis naa ko grand Ismaïla Lo boo gisee man sama grand la xam naa ni jullit axan la coon sekk ndéem si yàlla si xamoon naa ni ku jullite la woon mhm. est am naa yeneen jeunes tamit yu ma xam yoo xam ne c'est de artistes mais xam wax waxtu duñ leen raw xam nga ay nit yu baax lañu donc il faut que nit ñi bañ di xalaat nii Euh, un artiste quelqu'un la boo xam ni gëmul dara comprendre la artistes yi ay ñafekat lañ soo xoolee artiste bu nekk tey ji li ñuy wax emploi des jeunes président di ko wax tey ji boo xoolee jeunesse bi artiste boo gis mu mu def orchestre orchestre bi minimum y a une dizaine de personnes yoo xam ni dañ koy topp mu leen di fay mm-hmm. deuxièmement mu am ay techniciens am yëpp artiste boo gis société la yor donc c'est des gens yoo xam ne dañ leen war a encourager dañ leen war a jàppale parce que ñoom li nga xam ne tey ji moom la réew mi di wax ñu naan emploi des jeunes ñoom ñoo ci jiitu ñëpp parce que mhm. artiste bu nekk au moins il a une vingtaine de personnes boo xam ne bu deful spectacle ñoom duñu fayee ko moo tax période pandémie dafa metti woon ci artistes yi parce que artiste bu nekk ñi ngay liggéeyandoo ñëpp yow boo feebaree sax dañuy am problème dañ lay ñaanal moo tax gisoo artistes yu bëri dañuy gudd fan parce que gars yi dañ lay ñaanal nga parce que technicien bi mën a dund instrumentiste bi ñëpp dañuy dund ci yow mhm. donc c'est les yoo xam ne nit dañ leen war a jàppale ñaanal leen ci jàppale boobu noonu est-ce que maam góor dina profité ci koor gi jàppale ay nit ñeneen yoo xam ne soxla nañ ko. non man moom loolu ci laa dëkk man année bi yëpp man dama ko bañ ba ñu bari dañu naan euh, fexeel gis ko rek mais boo gisee lu nekk ci moom yaa ko moom. Mhm. man lépp lu ma yor dama koy partagé parce que man ci noonu lañ ma yere comprendre la li nga Cheikh li ñu doon wax naan lekk yi muy joxe soo gisee kenn mënul woon ci moom dara coow li da daan bari ci moom mais jàmm rek lay am mooy da daan joxe lekk daan. donc nit bu fekkee ni da nga ko da ko mën a dimbali sama soxna ngay gis nii man tey boo xoolee ouvrier yu bari nii sama kër chaque jour xëy ñi war fii yëpp ku nekk fu bool mën a dugg rek dina fu dugal bool. Mm-hmm. donc te dama ko koy wax tamit su ma génnee su ma dajeek ay nit mu leen dimbali te yàlla tax mu def ko te yàlla tax. Mm-hmm. parce que nit ñi dëgg la gis nga baaraam yi sax si ñun si ñun la sax mais tolloowuñu. Mm-hmm. te yow mën nañ bokk benn métier ma am ci loo amul. tey Youssou Ndour ci musique am na ci loo xam ni yenn musiciens yu bëri amuñu ko. Mm-hmm. wërsëg yàlla moo koy dimbalee nit mais bu la yàlla dimbalee ba nga am wërsëg bi nag da ngay am générosité dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf parce que ñëpp a bëgg a dem kaw mais suuf mënul ñàkk ay gaay mm-hmm. donc nag ñi nga xam ne dañoo gaay noo suuf ñi nekk ci kaw ñu leen mën a dimbali. Mm-hmm. donc képp koo xam ni am nga possibilité mën a dimbali nit te yàlla tax def ko te yàlla rek tax nag. bu si wut ay ku la wutal plaisir wala ku la tey jii da ngay gis. année bi yëpp dangay ngay dégg maam góor critique maam góor xaas maam góor lii mais dara du ma dal du gàllaaj du téere mais mooy dëggu ak dimbali ku ma tane te yàlla tax ci loolu laa sax. sa ñaanu waajur parce que. ñaanu waajur man moom samay waajur dëgg dëgg ne yàlla ñaanal parce que man ñaan bi gën a foor yaakaar naa benn ñaan gënul foor sa waajur toog ni la bu fekkee maa la ëmb sama biir boot la sama diggu ginnaaw doo torox sa yaay. te sa yaay da la ko wax ko toogee wax la ko te man sama yaay wax na ma ko ba taay. Mhm. comprendre la sama papa bi muy dund papaam la ma tuddee loolu ma tax may maam bu góor xam nga. mais mais maam góor ma brosse foofu bokkul ci góor ma brosse foofu tuuti euh, critiques yu bari sa yaay nan la koy jëlee wala doo ko xool. non sama yaay man mag la elle a 86 ans gis nga ko te gis nga elle est toujours belle. Mhm. parce que dafa may wax ni ma lu yëngu la ko yëngu ko ëpp doole mënuma nit ñi dañoo xamul. man maa la jur am na yoo xam ne kenn mënu ko wax ci tele est-ce que comprendre su ma yaay def ni mu doon ma wax ni ma sax man xamoon naa ni di nga am tur di nga siiw te coow dina bëri ci yow. Hmm. mais rek loolu nag jigéen ñi ñoo koy xam ñooy jur ay doom kenn ku nekk ñoom ñoo lay ëmb. Hmm. ñooy li ñuy yëg bi ñu la xam bi ñu defee xam lu ma wax. Hmm. mais junj na ma daal ay wax yoo xam ni xam naa ni du waxu xale nee na ma daal man xamoon naa ni xamoon naa ni moom borom tur ngay nekk. loolu wax na ma ko te yàlla dogal na ni moom gërëm na ma samay rakk gërëm nañ ma samay mag samay doom xam nga gis na nit ñi ñi ci biti buñ la meree te say mbokk bëgg la bul am souci xam nga moo bon sàmba àll nga am teraanga ñi nga sës ci yow dimbali woo leen man ku ma ku ma ku ma ku ma ku ma tane rek dimbali naa la ci ñi nga xam ni man ak ñoom ñoo bokk muy mbokk nag boo xam ne bu bu ma sës rëkk la ak mbo xanaa mbokk yi nga xam ne gisuma leen mm-hmm. mais lépp lu ma am su ma amee junni je préfère lekk deux mille trois mille ma séddale ko nit ñi moo taxit des fois man sax damay toog ba si yàgg man dama naan man sama am am sax xam fan lay jóge yenn saa ma jékki-jékki yeewu rek ñu woo ma ma benn xéewal boo xam ne dama naan xéewal bi fan la jógee te loolu lu koy indi mooy ndey ju liggéey mooy ñaan bu nangu mooy di dimbali nit ñi te yàlla tax mm-hmm. donc critique yooyu saa m'a fait ni chaud ni froid parce que ki ma yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi mooy maam Serafal maam Serafal da daan wax naan ëmb na wasin na rek la déggul ci àddina mais lu ñaaw lu nekk lu ñuy wax gor wax nañ ko ko te tey jii nit ñaa ngi sukk di raam di jébbalu dem di ko jox seen ruu àddina ak laaxira àddina su si bëggee nekk bëgg a tekki bëgg a sori doo bañ ku la critiquer doo bañ ku la saaga xam la moo bañ ñu ñëw nii dañ koo fekk muy sàcc wala dañoo ñëw fekk ko ci yi jàmbur wala dañoo ñëw fekk ko muy def naka sunu dul noonu man mm-hmm. façon fakastal bu nekk def nañ saaga nañ ma wax nañ ma traité nañ ma lu nekk ci àddina mais li am solo mooy je fais la fierte de mes enfants jur naa leen fu ma leen war a jute yar naa leen tey ji samay doom taala jazaaka day way comme man siw Sénégal ñëpp ko seedal ne ko yaru la mhm. kan moo ko yar man maa ko yar def ci moom dignité donc loolu mooy àddina il faut que nit ñi di la critiquer gis naa àddina bi ki ñuy gën a critiquer dama nga jege ko soo ko jegee rek xam ne xol bu rafet la am est la nit ñi nag mu àddina moo mel noonu nit ñi du ñu yonent bi moo gënoon a fort dañ ko génne màkk mu dem Medina est la Serigne Touba fii ne ko noonu jëlee Mbàkke Baari génne ko pendant sept ans xam nga. Mm-hmm. mu génn tey jii mu ngi ñëw ñëpp daw di riir topp ko comprendre la Macky Sall la ngi nii Abdoulaye daf ko jëloon def ko ministre de l'intérieur def ko lépp xëy suba teel dàq ko. tuumaal ko créel ko tey ku jiite réew mi moo ko jiite mu neex am mu naxari nit ñi yàlla moom la jiital donc fakkatal ci doomu aadama munul ñàkk mais li bon mooy ñànk ñànki may profité na ci occasion bi lii moom waaraate la waaw non damay profité na rek ci occasion bi ah, di ah, am benn message nag boo xam ni mhm. comme da nga ni émission bi warul am politique mhm. dafa am ah non maa ngi ñëw ci mhm. la bàyyi fi nga fi ngay tëddee message bi dese na ma ñaari question euh, peut-être dernière question pour reetaan la un ñu wooru gaalees ka danga ko daal def mais avant dernière bi te su ma la doon wax ci koor gi kan ngay baalu ak man koor gi man Sénégal ñëpp laay baalu ah, ak Sonko nag Sonko Sonko moo war a baalu sénégalais yi àq. Mm. parce que y' a quatorze sénégalais qui te ci on va faire mortal combat la jógee. mais est que maam góor warul baalu àq ma ko àq man jàpp naa ne ma ko àq moom amelu ma àq tey jii dafa am dama la bëgg expliquer rek man dama koy wax chaque jour moo ko bañu ko bañu ma Sonko contre ma Ousmane Sonko yéenewu ko kaso yéenewu ko dee. li ma contre ci moom mooy ay accusation yoo xam ne daf koy def ay sénégalais te du indi preuve te tey jii imaginel tey dama lay wax rek benn dama lay jox benn non non dugguma ci politique dama lay jox benn bërki démba dama seetaan mu def benn conférence de presse mu génn mu ne waaw mooy profité ci occasion bi sax di jaale euh, juge boobu mooy juge euh, Samba Sall mhm. ma koy jaale moom la ñu dénkoon dossier boobu nga xam ni moom moo ko lié ak xale bu jigéen boobu muy Adji Sarr mu ne juge bi tey ji dem na voilà mais léegi mu ne waaw léegi dossier bi dañ ko denc pour jox ko un juge corrompu tey jii xam nga manipulateur mooy quelqu'un boo xam ni ki ñëwagul kenn xamagul kan la ban personnage la moom commencé na tiimal kooku ba kooku dossier boobu suñ ko joxee nii rek sénégalais yépp li ñuy njëkk a xalaat mooy kii c'est un corrompu loolu baaxul soo nekkee si dëkk aspiré diriger dëkk dëkk boobu doo ko taal su fekkee ni les lois ak yi nga xam ne yëpp moom moo nekk ci dëkk nga war ko doxal ëllëg boo bu fekkee ni yaa nekk au pouvoir wala loolu waruloo ko yàq mais nit ku ñëwagul non même ma même non dugguma ci politique mhm. mais nit ku ñëwagul ku yeggseegul kenn xamagul kan la nga nekk ci weeru koor woor ba ngoon nga taxaw nga ni kii ñëw nii gars yi dañuy wër koo xam ni mooy juge bi gën a corrompu pour ñu jox ko dossier bi sawaay dossier nit boo nekkee ci réew da ngay nangu ñu lay àtte mais mënoon ni saa yi ñu la waree atte nga ni waaw bu ñu bàyyee ba élection yu jub si bu ñu ma wooyee du ma wuy ji wala bu ñu bàyyee ba lii yow yow daal yow yaay décider yow yow dafay mel ni yow léegi yow yaay justice yow yaay defal lépp sa bopp loolu du yoon il faut que jeunesse bi yeewu ci loolu loolu rek moo tax man Ousmane Sonko ay affaire yu bëri duñ ci ànd contre ma ko barke yonent bi weeru koor laa nekk yonent bi laa la giñal j'ai contre Ousmane Sonko mais c'est un manipulateur c'est quelqu'un boo xam ni yow yow yow yow yow loo xam ni ñëwagul nga commencé taxaw ni kooku ñu war a jox dossier bi ki war a remplacer Samba mu nga bëgg dugal ci xelu sénégalais ak xolu sénégalais ni kooku dañuy xool ki gën a nekk corrompu kan mooy dem jàng waat ni dinaa àtte yoon ñi ñëw jox la dossier ngay àtte lu neex nit tey jii man mii toog fii sama fauteuil bii nga may interviewé kenn jii ñu ma viol parce que demuma demuma fenn foo xam ni war nañ ma fa jiiñ viol dossier bi ba muy door a am man ñu bëri laaj nañ ma ci man duma ma ci wax mais moom bu fa demul woon kenn du ko jiiñ man ba léegi nii nag ba léegi nag néew ma moo def néew ma mhm. mais li ma koy ñaan lenn rek laa koy ñaan loo koy waar tey mooy c'est quelqu'un boo xam ni il aspir diriger un pays ay nit gëm ko na bàyyi di yee fitna naan bu ñu ma convoqué duma dem ak génn leen ngeen xeexal ma ba nga fay dem di am sa plaisiru bopp ñun amuñu woon plaisir boobu ñun suñu yoon nekku ci kon nag demal nga assumer c'est loolu mooy yoon voilà. mën nañ la invité te doo wax ci Sonko tamit damaa la posé question ci Sonko sax mais. dugg nga ci politique bi mais dama rek parce que non non du politique. ah bëgguma woon politique c'est que xam nga loolu du politique. man damay wax xam nga fii Sénégal soo waxee ñu ne da ngay politique dama lay wax. wax naa ko yonent bi laa la gi yonent bi ku ko gën a màgg ci àddina amul parce que ci baaxam la ñu sàkk ñun. Mhm. Ousmane Sonko encore une fois contre ma ko. keroog bi mu génnee def euh, bi coow li amee ci dëkk bi mu génn def sorti mu ne ñi doon taal yónniwu ma leen nangam nangam man bi ñu ma si laajee dama ko apprécier dama ni man j'apprécie ce que ce qu'il a dit parce que am réew soo ko bëggee doo ko taal contre ma ko dama la koy wax encore une fois mais tey jii il faut que jeunesse bi ñu conscientiser leen imaginez tey jii li xewoon bërki démb arena bi esat benn mbër bëree daanu xawma daan booy yéeg di jël chaise yi di ko damate di damate chaise yi. ah loolu nag du dama ni du moom non waxuma la moom la dama lay wax c'est que genre discours yu mel noonu ay discours yu agressif yooyu ak yooyu moo commencé di influencer booy sénégalais yooyu di dugg seen bopp sénégalais dañu yàgg toog di kaas am na ay temps Sénégal bu ma saan di recevoir benn équipe day dem fubali ji ko Gambie wala mu dem fubali ji ko Maroc mooy temps ñu tëjee stade amitié nit ñi di kaas naan stade la ñu bëgg waaye léegi ñun ñu am benn bët bët bi ñu koy ñu ñu koy yàq. mooy làmb ji yàgg ñaata at la mbëri toog fii si plateau télé yi naan dañoo bëgg suñu arène bopp ñu wutal leen arène yow nga dem sa mbër daan nga kontaan kontaan nga def de yow man si li ma dégg sax ñu ne ñoom seen mbër a gañe ñuy lamb saisi mais soyons logique il faut que nit ñi comprendre ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar ba pare jeunesse bi encore dafa am loo xam dama koy lancer la jeunesse sénégalaise mooy tey su fekkee ni chômeur xam nga kan mooy ki nga xam ni dafa jàng ba am diplôme yépp dem déposer amul liggéey wala ki nga xam ni dafa jàng métier ba qualifié te amul liggéey kooku la ñuy woowee chômeur mais yow ngay nelaw ba midi nga yeewu laal sa kafe bu tàng jër bool bi jot nga añ ba suuf naan man damay chômer Macky Sall def fi dara liggéeyul mais yaa liggéeyul il faut que nit ñi jóg man tey ji musicien laa. non naa la seet si waat parce que message yi ngay wax ni façon jaay man damay damay damay tabax damay jaay damay def business damay dugalante di gënalante. nit il faut nga yeewu di yëngatu. mais boo ko bëggee xaar fenn rek doo ci génn te chaque fois nga mere koo xam ne defu la dara. am na solo voilà. am na solo dernière question nag dis nga foo nga politique politique <laughs> dama lay bàyyee dama lay bàyyi rek koor gi la. <laughs> Euh, euh, dernière question est-ce que mus nga dund. comme ñëpp jeunes yëpp ah wóoru gaale. nga nettaluñu ko no wóoru gaale moom képp ku nekk xale. Mm, jaar la si jaar nga ci ay jë woor ba ay midi yooyu nga jékki-jékki dem xool desu de reer bi démb. Mm. nga fexe noo ko dóore wala yooyu. Mm. comprendre la mais loolu da nga koy comprendre parce que. ah doo nettali yow sa anecdote. waaw non man def naa ko ba tàyyi moom laa lay man bu ma nekkee xale doon naa ko def damay ñëw nii ñu woor karab karab. ma bàyyi noonu. suñu wooree ba ay kii ma jéem a xool. waañ bi bu xama weeru koor nag ay weer ju côté njolloor yooyu maire dañuy nelaw parce que koor yooyu di jàpp ma yoxoosu nii bu fekkee ni dañoo dóoroon tufe wala dara ma dem xool morceau yi ci gën a baax hmm. ma lokk ko pare wut sama kii foofu daal dem laal ci miir bi <laughs> laal miir bi nii ciment bi laal sama kii mu a weex <laughs> ma romb xam nga ku ma gis yaakaar ni war naa mais c'est boo xoolee loolu di nga xiifal ba midi ba 13 heures ba 14 heures nga def ko après continuer léegi nag loolu mooy tax nga dem ba tàmm nag mën a maasale journée bi yëpp. c'est important may profité nag ci occasion bi di wax ni lii dama koy lancé képp koo xam ni tu es une ci réew mi weeru koor lañ nekk jóge ci pandémie soo leen bëggee dimbali le président de la république yéen ñi nga xam ni yéen la fal jox leen domba tànk may leen doole def leen social parce que keroog maa ngi gis le ministre Malick Sall mu jël ay camion yëpp ci ceeb yëpp ci dëwlin dem. Euh, maatam di ko jox nit ñi ministre yi dëkk Diourbel ñi dëkk Tëngéej ñi dëkk Kaolack ñi dëkk Mbour ñi dëkk cees képp koo xam ne tey jii yor nga ndomba tànk nekk ci état pandémie lañ jóge bii mooy suñu premier corps def leen ay moyens ngeen jàppale sénégal yi jàppale président de la République parce que social c'est important mais tey jii coow am na ci réew mi yaa un mois ci ginnaaw kenn déggu leen kenn gisu leen du ñu def social duñ jàppale nit yi c'est pas bien. est-ce que wutal leen liggéey gënul di leen jox ceeb non dëgg la non dama ni président. bëri ci politique la def non dama ni bëri ci mhm. démb la président def conseil de la jeunesse taxaw jeunesse bi yëngal mu ne dégg naa leen di jéem ay pexe mais nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom te nit ñëpp mënuñoo jote ci président mhm. nañu jàppale askan bi def comme Malick Sall di mu def keroog. maître Malick Sall ministre de la justice keroog ay camion la jël def ci ceeb def ci diwlin man tey moyens yooyu su ma ko amoon mën a jël ay camion def ci ceeb def ci diwlin dama koy def mais li ma mën maa ngi koy def donc lii dama siy ñaax rek ñi nga xam ni tey jii ñoo nekk ci nguur gi mu nekk ay député nekk ay ministre wala nekk ay DG am ay opportunité mën a dimbali nit ñi te yàlla tax ñu def ko te yàlla tax parce que li ñu yor alalu askan bi la kon delloo ko ci askan bi dafay am solo comme man nag président de la république laa faral mouvance présidentielle laa àndal donc samay compagnons de guerre <laughs> am naa droit wax leen occasion bi laa am xam ni Sénégal ñëpp a koy xool. ñaax leen bu ma profité ñaax leen ñu def comme Malick Sall c'est important. Mhm. wala Babacar Sadikh Paye gis naa ko mu def ko. Mhm. voilà d'accord kontaan nañ ci dalal la. ak Matar ba da koy def. ak Matar ba waaw Matar ba da koy def. trois yooyu daal exception la. Ah. Malick Sall. waaw Babacar Sadikh Paye Matar ba. non man dama koy def. ah yow da nga koy def. ak ah, ñëpp dañ ci dañ koy def. Euh, kon nag ñi si ñeneen ñuy topp. kontaan nañ ci il faut ñu góorgóorlu. Mhm. jàppale nit yi te yàlla kontaan nañ ci ci ci dalal bi yaa ñu dalal sa kër kontaan nañ trop. Mhm. beneen yoon nañ ñëw waxtaan ci politique bi nag. non amul benn problème man xam nga yow mënuñoo waxtaan te laaloo politique mais boo waxtaan bi amoon na solo et tout. peut-être euh, nga tàggatoo rek. waaw damay profité nag ci occasion bi di remercier Sénégo. Mm-hmm. parce que yenn saa yi ma dégg ay nit naan Mame naa ni. Mm-hmm. peut euh, li may wax saf na waa Sénégo moo tax ñu koy génnee may profité ci occasion bi di leen ñaanal ci barke weeru koor bi. Mm-hmm. lépp loo xam ne moom la ñuy xaar ci média yàlla defal leen ko. parce que jox nañ ma cër bëgg nañ te ñu ngi satisfaire sénégalais yi. ku bëgg am information bu leer nañ bëgg information bu wóor Sénégo ngay dugg. waaw. quand c'est important. Ah. c'est sur Sénégo et référence actu. <laughs> Ah, loolu pub la. ah loolu publicité la mais nag c'est important parce que nit ki des fois bu la defalee dara da ngay xaar occasion. Mhm. pour delloo ko ko. may dégg ni tamit am na benn avion boo xam ni Air Sénégal la ñun ñoo ko moom mu am ñuy dégg ni dafa am bombe buñ ci placé yooyu. ñoo ngi ñaan yàlla loolu yëpp bañ am. Mm-hmm. mu rafet lool parce que ñun compagnie boobu rek lañu am. ku am benn bët nag da ngay ñaan yàlla mu bañ a fattu yàlla na yàlla defal. ah déwénital Sonko rek teg foofu déwéniti ko waaw Ousmane maa ngi koy déwénitil. waaw di ko ñaanal yàlla may ko wér. di ko ñaanal procès bi mu nekk yàlla dogal procès bi mu leer nañ ñu xam fu dëgg féete. Mm-hmm. boo amee dëgg ñoo xam ne Ousmane Sonko moo am dëgg. bu Adji amee dëgg tamit ñoo xam ne Adji Sarr moo am dëgg. maa ngi koy ñaanal daal wér. ak jàmm ak tawféex yéene ma ko dara lu bon. lépp lu ma ko jéene dama njëkk dal. lenn rek laa xam ne du ci ànd ak moom mooy li jéem a dox ci maayanu nit ñi te man xam nga man dama yeewu man pour nga dox sama maayan yombul mënoo nekk am benn dossier boo xam ni c'est pendante ngay ñëw taxaw nga ni dossier bi ki ko yoroon dee na mais keneen kii ñëw dañuy xool ki gën a corrompu ñu jox ko ko pour Sénégal yi léegi ku ko mën a jox rek gars yi dañuy jàpp ni kooku du ko loolu baaxul bul jàpp ni yow yaa set ñëpp a loolu c'est pas bien loolu rek la loolu rek la mais Ousmane Sonko billaahi dama koy wax fii su dul woon loolu man mun naa ànd ak moom parce que man révolutionnaire laa mhm. bañkat laa mhm. mais loolu mooy li nga xam ni di sosal ay nit te doo génne preuve mënuma ci ànd ñu ngi ñooy dama ne leen ñii ñooy star yi maçon yi ñii ñooy liggéey di ñàkk di tooyal seen yaram comprendre la boobu ñoom booy yambar yi nekk fii si dëkk bi di wóor yi. jërëjëf ñëpp jërëjëf ñii ñëpp. boo ci ah, man man ñu ngi lay samay copain. voilà voilà. boobu mooy boobu mooy jaajëf bi du ma ci. waaw ah, non daa baax rek daa baax rek moom dafa gëm ouvrier yi nag waaw moom moom ba léegi loola. danañu ñëw jurkatu waari ñu am mécanicien yi atelier yi. Eh, waaw eh, moom daal daf ñu bëgg a def ay fële. waaw eh, dafa bëgg ñuy dawal ay oto nee na. di gaare si sànni Macky Sall Macky Sall mooy président de la République bu yéegee avion ba ñëw ci kër lay dugg. kër gi muy fanaan maçon yee ko tabax. dëgg la waay bilaay Uh, tool la maa fi bay soble dem leen bay bay am na solo waaw boo nekkee jeune bi nekk ci réew mi da ngay yëngatu ñu micro rek yor ñu micro rek di bay dem lay def soble saa ngi